jóge njaarnde ànd ak moom ñëw tàbbi biir Tiwaawan te ba muy ñëw nag déggoon na tafsir de waaye lépp mu jaar ko tarbiyaa ko Seydi Hadji di tekk ndiggam nag di gàmmu lu Maodo bind moo ko siiwal kooku nag mooy maamu Saale Baay yamu fa de Mansour di baayam Moussa Ale di maamam waaye bu lekkee may ma mu rees fàttam yaayam maam Awa Njaay maamam may sa Njaay gawlo di maamam mu doon way nag ci meen ak ci jañu waaye jël lépp nag doon donay Moussa Ale nawet boo gis maam jëlay nuru bari Moussa Ale ngoog ngañ بأنك تأتي ترنم ترنم ترنم هو أزول أتأيم وتساسوا بالكام أتتيم وما سخيم الخلق أترنم أترنم أترنم وعزول لا إله إلا الله nanu loxo yi ca kaw yaa imaamal yaa imaamal Yeah. الانبياء تدنا يونان يا امام يا امام الانبياء تدنا يونان يا امام يا امام الانبياء عبد العزيز خمل يا امام يا امام العزيز خمل يا امام يا امام الانبياء تدنا يونان يا امام يا امام الانبياء تدنا يونان Hallelujah.

المفاخر سرعاد قيس معرف نانا محمد الحبيب كالكريم أين النعيم مركز الفوز nabi mooy xayrul bariyati shafiul ummati ana ku bëgg yonen sera jabdoy si maari sang ba neena akrimi min saydil xamuli baayu sëriñ Mawdo si neena adal baraya wa duurul Mustafa Duja ñëw ci lii walahul kamaalo walahul kamaalo seexay xudwatul seexabakar si way na sallam walahul kamaalo walahul kamaalo seexay xudwatul bayu sëñ Babacar nee na xalifa walahul kamaalo walahul kamaalo soxla ku sopp Sëriñ Babacar ku ma soppal Sëriñ Babacar si neena wala wul kamaalo wala wul jamaalo seexal xudratu seex li ma ne talaay maar xalifa yay daba jaay bay aali boy bay mi salsal bay naar xalifa yay daba jaay e way bu ma soppal sëñ Babacar solo xalifa yay daba jaay e way bu ma soppal sëñ Babacar solo xalifa yay daba jaay mar ma la la kono babal yana rëtëtën kooku mooy sëñ Babacar e si kono kono yu dogal na bay si bay si si bay si bay si bay si bay si bay bay si bay way leen ndayooy bay si xalifa yaay roqoya njaay Babacar Sadiq bay bay bay bay bay si bay si

abduna lan la wax mbay di abduna lan la wax bu ngeen deeti way mbay lu ñu koy way na ngeen ko waaye ay way moo di la li may bëgg way wax ñu ko way li bay wax ñu ko sigari sigari wax ñu ko way wax ñu ko sakara ya mbay si mbay way leen ginnaaw bi ñu sante ci yeneen bi ngeen gis lépp du kenn ku dul sama turandoo muy Diop Sy Demba Diop kaar yi fi ñëw yëpp ginnaaw yàlla yeneen bi kooku ma jàppale jërë ngeen jëf yi ngeen may nu tuuti rek ñu continuer programme bi ngeen may nu tuuti ñu continuer programme bi euh, jërëjën jëf jërëjën jëf mbokk yi jërëjën jëf mbokk yi ngeen may nu tuuti rek ñu jugoot ci li nga xam ni mooy programme bi gërëm ñi nga xam ni ñoo nu jàppale ci bis bi ba nu egsi fii di jiital ci ngërëm li ñuy ñaan ñi nekk fii ci sunu kanam ñuy ñaan ñu nekk fii ci sunu kanam sunu mbokku jigéen yi ñu toog may nu tuuti ndax dañu nekk ci direct ci télévision ñu ngi leen di ñaan yéen jigéen ñi toog fii sunu kanam ngeen may nu tuuti rek ndax dañu nekk direct ci télévision bi te image yi mi ngi jëm ba bitim réew te buñ sañoon yéen ñi nekk taxaw waalu te ngeen di taxaw ngeen toog pour ñu mën a continuer li nga xam ni mooy soirée bi ñi ngi jëm ci sunu mbokk yi nga xam ni ñoo jóge Mauritanie te ñëw ci bis bi bu ci kanamee léegi bala ñoo dugg incha allah ñi ngi installé wu ñu ñaan leen ñu tàccu leen ganale leen ndax Sénégal ak accueillir gan la am di gërëm monsieur Mamadou gay président fédération di boulanger di Sénégal xam ni jàppale nañu tey ci ndogalu nu amoon ci grande mosquée di gërëm waa crédit mutuel yi nga xam ni ñëw nanu jàpp si ci festival salaam ñoom tamit di gërëm Satrec Vitale di gërëm Sofiex bi nga xam ni partenaire la mais tey ci fii festival daf ci am taxawaay bu mag di gërëm Eau Minérale Plaisir di sant tamit fondation servir le Sénégal bu madame madame fay Sall Marème Faye Sall mi nga xam ni mooy ndey ji seex ma ñaan ñu tàccul ma ko bu baax a baax ci li nga xam ni jàppale ne ko euh, festival Salam di gërëm libaas bu kër aram jàppale di gërëm Zeyna bu exotique di gërëm Boisson Planète gërëm Dolima Chakri di gërëm Brioche Dorée ak Moustapha Diop 37 cinq mi nga xam ni ci kër gi la bokk waaye mbokk ñuy gërëm suñu mbokk yi Mauritanie yi nga xam ni danoo bàyyi seen soxla bi nu déggee festival bi rek ñëw ànd ak ñun waaye ngërëm li dañ koy sësale ak ngërëm li nga xam ni moom la ñu jagleeloon sànq ki nga xam ni mooy Sa Majesté le roi Mohamed VI bu Maroc ci li mu nangoo ne guddi gi mook monsieur le président de la république Macky Sall ci li dañuy ànd ak festival salaam pour muy am at mu jot festival bi nag tur wi ñin ko tuddee mooy le président Macky Sall sa majesté Mohamed VI du tur woo xam ni at mu jot day changé wenn tour lay doon tudde nañ ko festival salaam Mohamed VI sa majesté ak ki nga xam ni mooy le président la Macky Sall diiru festival bi di am ñoom rek ñooy nekk parrain ndax it nit boo dee def dara da nga koy dëppale ak ñamu tollool waaye ak jàppale ak niveau ban ca jàppale ñuy gërëm ambassade bu Maroc ci li taxawaayam ak ci ndimbalam ci oyofal nu ba troupe bi war a jóge Maroc di ñëw waaye tey jii dañuy beral ngërëm madame Touré mi nga xam ne moo nekk ci ambassade ba mi ngi ànd ak euh, euh, xam naa borom këram ñu ñëw tey ci guddi gi waa ambassade bépp ñu leen di gërëm di ko jaare tur wi ci madam Touré ci jàppale bu mu nu jàppale kon mbokk yi jëfe naa ni lii ñuy def lépp mooy fi nu bëgg jëm ak askanu Sénégal Sénégal émergent la ñu wax ku ci nekk pàcc ba nga féete nga def ci taxawaay boo xam ne bu ëllëgee bu dee wax li réew mi jëm fi réew jëm nga mën a tàllal loxo ni la ñun ñi foofu la ñu jëm moo tax ñu initier yi nga xam ne mooy festival salaam amal ko waa biti réew di ñëw di ci indi seen doole di ci indi seen aada ak seen cosaan fekk suñu sunu bos mooy loolu moo mu gën a wóor kon mbokk yi da ngeen may may ci baat yu gàtt ci wàllu tubaab parce que Mauritanie xëy na duñ déggu olof waaye dinañ déggu tubaab ak ñeneen ñu ni seetaan ci bitim réew parce que caractère international euh, festival bi moo tax mu ngeen baal ma rek ci ñaari baatu tubaab yu gàtt ma bëgg nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo nuy seetaan te xamuñu li nga xam ni mooy festival bi wala bokk dégg nañ festival bi waaye xamuñu fu mu jëm ñu ma leen koo tekkil ci baatu tubaab yu gàtt rek. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à travers le monde, nous sommes en direct sur la télévision Futur Média et au Théâtre National Daniel Sorano pour la deuxième nuit du Festival Salam. Pourquoi le Festival salaam Parce que tout simplement, c'est un festival qui regroupe les chanteurs locaux d'ici et des chanteurs d'ailleurs. Et maintenant, nous sommes avec vous. C'est un festival que nous voulons dans la durée. Un festival parrainé, accepté par le président de la République Macky Sall, qui dès les premières heures a accepté le parrainage de ce festival avec Sa Majesté, le roi du Maroc Mohamed VI, qui a accepté lui aussi de parrainer ce festival. Donc, pour vous dire tout simplement, le nom du festival salaam est un festival qui dans la durée sera toujours parrainé par ces deux messieurs, ces deux présidents, le président Macky Sall et Sa Majesté le roi du Maroc. Tout simplement, nous voulons être fidèles à notre conviction. Nous voulons être fidèles avec vous, mais nous, nous voulons être fidèles avec nos idéaux, qui consistent à accompagner le président de la République dans sa démarche, dans son plan Sénégal émergent, pour au demain, à l'heure du blanc, que nous, pouvions, que nous puissions lever la main et dire que nous avons participé façon au, au, sur le, au, plan Sénégal émergent. Chers téléspectateurs, nous vous remercions tous, mais je vais vous décliner en peu de mots le programme. Aujourd'hui, nous sommes à Sorano. Demain, allah nous serons à Guédiawaï, dans la balai dakaroise et, et plus principalement près de la cité HSS, là où se déroule le marché du jeudi. Le, le 10, nous serons à Thiès, Inch'Allah, et le 11 sera l'apothéose, ici aux allées du centenaire, avec la participation de, de la star mondial monsieur Youssou Ndour qui va jouer sa partition pour la phase finale de ce festival kon mbokk yi li ma leen bëggoon a wax moo di festival baa ngi noonu Sénégal am na festivalam Ndakaaru di dund festival bi Thiès di dund festival bi incha allah bu déwénee ñu àgg ci yeneen région waaye mbokk yi dama bëgg ngeen tàccul ma taxaw tàccul ma ñi nga xam ni mooy sunu mbokk yu jógee Mauritanie tàccul ma leen parce que ñoom accepté noonu kon ma leen ak mbokk Mauritanie ngeen jóg merci beaucoup Thank you. الرضلو زين الشرف ونزلو جبريل بيمين ملوك الله بعد صدقة لا تنقيب المشرك الميت المكتف واللي ينصح كلمه يبين واللي بينه واللي بينه واللي بينه واللي وخدوا محاليين غير اللي رجعوا ضاعوا لواحد واحد اثنين اثنين واللي بينا واللي بينا mbooloo mi Mouhamed Fall ñoo génn léegi orchestre bu mag boobu léegi kontaan nañu ci ñoom bu baax a baax di wax nag ci kanam tuuti di ngeen gis seen xarit moo Modou Galas mbaay ci kanam tuuti di ngeen gis seen soppe Alaaji Cheikh Diop Mbaye léegi nag incha allahu taala ñu ngi ni nag dëgg-dëgg taalibe Cheikh na Cheikh Sadbu ah Sëriñ Bamba Seck bu Adraame bu Sidi Buya mooy dugg si léegi Nabir ثم صلاة وسلام أيدا على رسولك تفيد فيدا ثم صلاة وسلام أيدا على رسولك تفيد فيدا ثم صلاة وسلام أيدا على رسولك تفيد فيدا أنا واكر شيخنا الشيخ سابو دومي شيخنا Cheikh Saad Cheikhna Cheikh Saad yaa Cheikhna Cheikh al Hadrami doomi Cheikh Sidi bu yaa doomi Cheikh Mouhamadoul cheikh alxadraame doomi cheikh sidi buya taalibe cheikh duma abdaati doomi cheikh misbahuddin sallallahu alayhi wa sallam sayyidil kawnayni wa alimi shuhudi sahibul izrahi nuqbada banu hashim anda ko figa nabag muhammad rasulillahi sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد محمد رسول الله ولا جنان سيدنا محمد ولا نار سيدنا محمد ولا ملك ay budul woon ak rasulilaay du ñu lekk du naan du ñu kon kenn du xam jóg leen ca kaw ñu màggal Seyduna Muhammad màggal leen rasulilaay màggal leen rasulilaay Sara